A'udzu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki téléspectateurs yi jàkkaaru ñu ñu seetaan mo xam ci biir réew mi ak bitim réew ñogi amati mbikté contenté bu yaatu dikkati ci seen jotay am solo yi nga xamanteni ni baaxoo nañ ko and ak yeen di sét ci ñen ñi nga xamanteni ni seen taxaway ci askan wi ak jug di askan wi té kenn ku rek xamné jamono jii yi bari na moo xam ñi nga xamante ni dañoo am batai, jafe ci wàllu wërgu yaram ba tey ñu ngi tisali l'hôpital am ñoo xamante ni sax ñimiwuñoo dem ci hôpitaux yi ndax garab yi seer gu mu seer ak hôpitaux yi faj mi metti gu mu metti suñu borom may leen may leen xam-xam ci faj may leen itam taxawaay ci jigéen guñ sigee seen seen borom ba nga xam suñu suñu borom subhanahu wa taala seen borom nangu ñu ñëw seet si kenn ko xamanteni ni xani ani taarif la mu di serigne abdul xuddus Sen, borom firi man ci ñëpp serigne abdul xuddus Sen, borom Ijaba, jige suñu borom su ñaané suñu borom nungu ci katnu suñu subhanahu wa ta'ala serigne abdou sen borom allah kulli hal allah kulli hal nak di baat bo xamanteni daf koy utiliser diko jëfëndiko ndax lepp lu ñaan suñu borom da ko jey fekk mom serigne abdou sen momu mom lañu fekk fi tay ci pharmacie PAI jakarlo bios dore bi ngeen mëna jokk ak mom ci numéro téléphone yi le 78 443 75 27 di ko xamanteni firi gentu mo ci man wax nako digëna suñu borom su ñaané suñu borom nangu ko waye su dé ci walu hémorroïde mo ci man su dé ndoxu city mo ci man lepp li nga xamanteni new carton ak jigen ju taxaw serigne abdou khodous mo ci man kon nak dañ ko jox kaddu gi mu nuyo ndax fessel ko feñal ko da bok ci jaamu yalla ndax nit a ci ruq boo xamante ne tey daa bëggoon a am na jafe-jafe yu métti yu muy jànkonteel waaye ñiy gàmm ak ñiy raas déem bokkuñu ca ñëpp jóg nañ nag suñ jógee kenn ku ci nekk nag doo xam ana waaja ca su fekkee nag da xool saa su la waay waay rombee nga ne du waaja coon sekk waxoon na la waaja dana romb ca doo xam ni waajaa kon waajaa ngi nii sëriñ Abdou Khoudous borom ijaaba asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ala kulli xaal euh, sëriñ Moussa ñu ngi leen nuyu baax di la ziar. Mm-hmm. Euh, di la ñaanal jàmm bu baax a baax euh, di rafetlu seen teewaay ci jataay bi di sant yàlla bu baax ginnaaw bi ñu boolee ba ngeen ñëw dalal ñu jotaay pour ñu fas yéene waxtaan. Mm-hmm. ndax daa loo xam ne bu nekk ci nit ki te fasalu ko rek. mën naa bañ a am njëriñ. Mm-hmm. kon bu leen yàlla defalee tawféex ba ñëw fas yéene waxtaanee pour loo xam ne mën naa jëriñ nit ñi. ndax dafa dañuy wax ne am na tawar yoo xam ne hôpital moo koy faj. moo koy faj. du hôpital moo koy faj. du hôpital moo koy faj. ay a koy faj. a koy a faj. comprimé du da ngay dem ci ku yàlla may mu la teg ci yoon cet gi dañ. rocc ko nit dëgg. moo koy faj. déedéet. hôpital yaakaar yaakaar mu dañuy joxe comprimé boo xam ne bu ñu boo ko naanee liggéey bu tëj. Mm-hmm. xëy na xamaguma ko nekk ne waaye dafa am yoo xam ne yàlla moo koy booleeg ay nit kon secret la bo xam ci alquran la nek mhm. mo tax kon bu ngeen ñewé dalal ñu pour ñu waxtaan ñu léral xam-xam. dal ñu ci sant baax di sant yalla baax lepp luñu fassiyene fas yéene wax tamit njëriñ yàlla nañ ko jariño lepp lu ci joom nak nañ xam mar maradik doomu adama la. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jerejeuf serigne Abdou euh su fekke deg nañ ni nga waxee amna lo xamanteni hôpital mënu ko faj waye amna lo xamanteni hôpital mënu ci dara. Mhm. nitay jaamu suñu borom suñu borom nungu ko. Mm-hmm. nungul ko ànd ak moom ci ay càkkutéefam su ñaanee mu jigee ko lool nangu ko ñaan googee loola moom moo koy faj. Mm-hmm. mu mel ni suñu borom dala cee boole boobaa léegi nag ñu la koy topp. Mm-hmm. mel ni nunguloo ñu ko woon ndax bëggu na toog sa ruq rek. di def li ngay def. waaye nag nit ñu koy sàkku itam ci yow ku fi ñëw indi keneen keneen ñëw indi keneen ba mu xaw a bari. moo tax nag ñu ni kon nag lii demande sociale la. ngir nga génn. wax ak askan bi mhm. fii ñu njëkkee rek mooy euh, ñaan mhm. lan mooy ñaan mhm. ak sarti ñaan ak itam ñaan lan la man ci doomu aadama ak lan moo la ci suuf sax yow waaw alaa xaal ñu sëñ Moussa ci laaj bu am solo bi euh, muy li ñuy wax ñaan yàlla muy ad duwaaw duwaaw nag ba ci julli sax ñaan la ndax da ngay am loo bëgg pour yàlla defal la ko loolu nag da ngay jaar ci ab yoon bi ci desaat tamit. Mm-hmm. Eh, ñaan mën na dundal dimbali kuy dund mën a dimbali dimbali kii faatu. ku faatu ndax suñu tubaab ma ko isil doon aw yan faaxul may wayen xool xay wayu jul mm-hmm. ñaan day jariñ ki dund njariñ ki faatu. day xëcc ay may. Eh, waaw da uh-huh. saa soo dee ñaan yàlla yàlla di la may. Mm-hmm. ngay dimbaliwaate nit ñi dañuy gën a bëri ci yow. kon loolu it dana eh, dimbali ba tax li ngay ñaan mën a sotti. Euh, ñaan nak man na lu bari ndax nit mën nek ci ay xat-xat euh, nga ñaanal ko yalla ba tax ñaan gi euh, soppi ay miram benen bi ci topa tamit nit ki mën na nekk ci ay xat-xat nga ñaanal ko yalla ba yalla soppi ay miram mm-hmm. amaa nag mbir yi xam-xam la yo xam dañ koy nak ba yalla ñukoy ci ay nit ban am ci luñ ci yalla denk mm-hmm. donte amana yeen nit yu nekkon yeen xam ngeen ko mm-hmm. xam nañ ko waaye nag nit ku ci nekk loo def ijtihaad yàlla may la ci tawféex. may la tawféex. ndax yàlla li mu yor da koy jaay képp ku jaar yoon bi mu koy mayee mën nga am li mu bëgg. Mm-hmm. loolu it day tax ba nit ki xam ne lii kat nekkoon naa ci mën naa am leen lu lu goo xam ne mën naa ci dimbali ay nit. Mm-hmm. ñu sóobu ci di ci jàppale ay nit te ñu ngi ciy dimbali ay nit nag ndax yàlla ñuy boole ay nit ñoo xam ne. mu mm-hmm. ngi def sutura ba lañ doon sàkk bu lépp sottiwul tamit lenn li mën naa sotti. ndax mënoon da ngay ñaan yàlla far force ku ñëw aajoom faju cent pour cent loolu nekk. dëgg donte yàlla mën na lépp waaye taxul mu def lépp. Mm-hmm. te yéen bi yàlla am na lu mu ko mayoon am na lu mu ko xañoon. dëgg la kon loolu it day tax jaam bii ñaan yàlla moo xam ku muy ñaan. Mm-hmm. Euh, ñaan nag mooy escalier bu dox ci diggante nit ki ak borom. ndax dañuy wax ne nit làmmiñu jàmbur kenn mënu cee mooy yàlla. Mm-hmm. ndax sax làmmiñ mun nga ceex wax njuumte waaye làmmiñu keneen mënoo cee njuumte. kon kooku noonu moo gën a tinu pour mën laa ñaanal dañ koy wax ne néew sa bu faatoo boo ko dee ñaanal yàlla fiddaaw bu néewoon ci jafe-jafe yàlla mën na ko ci jëlee. mën na indi ko ci jàmm. Oh. asuma laa koy dund. dëgg ni ma mënee am yaqin ne mën naa toog fii jàng ay ay saar ay mbir ñaan yàlla mu jéggal ko faatu noonu nga mën a amee yaqin ne mën ngaa ñu toog ci barab wér dal nit kurus aajoom fajo mm-hmm. kon ñaan li man bari na tey jii mën ngay yuutu dara ak kër nga di ko jënd nga am njëg gi waaye mënoo soo jot nga dem nit ñaanal la nga jot ci nga jot ci ngay wut place mono ci jot nga dem ñaan nit ñaanal la nga jot ci nga jot ci place ngay jaay dara mënta jaar nga dem nit ñaanal la nga jot ci mm-hmm. kon lool it ay mbir la yo xamni ñaan yalla amul lu mënut mm-hmm. ba ci gi nekk ci hôpital bi sax day am fu mu tollu dem ñaan yalla dem na li kat jafe-jafe la bo xamni ma ngi dem ñaan yalla pour defal ma ñaan pour poste bi ma ma nek ma am poste mm-hmm. kon ñi lu moom ñoo gën a bëri ñu ñaanlu ku naan la lu kenn waru ko def moy kon waro dem sakku ci yalla dara ndax yalla sax dafa bëgg nga diko ñaan motax da dañe su ngeen ma ñaane ma may leen xeyna kon ñaan ak ak njibar dañu bokkut sore na comme yalla ak yalla rek ndax njabar moy di def lepp lo xam dañ ci génn yalla da te ñun ni ñaan yalla lañ koy ñaan ko kay ñun ñun sor nañ njabar njabar mom baat bi sax dafa dem ba dafa laté laté laté ba japp nañ li képp ku juk pour ñaan rek da ngay njabar njabar ñi ñaan ñi ëpp sor nañ njabar am na ci xam boog ci xam ñu bari lepp lu laal ak njabar dañoo sel di sel di jup tay jubal mooyun yalla defu ni tapel defu ni caaxaan lepp ci alquran ci lañ sukkandiku di ñaan mhm. njabar nak moy di jël ay mbir ray xar ba yalla taxul japp ay ginar di waré te yalla taxul ben di jaamu ay xërem wala di jaamu ay shayatin wala ay jinni ñu lay nga leen def lo ñuy def nga xamni da nga na li carrément li du yalla li ay mbiru njabar la suma ma bëggee day am su bëggu bëggut day am mhm. loolu koy def mom daan ko ak kufru dëgg la te njabar mooy troisième position ci bàkkaar yi gën a mag. Mm-hmm. ginnaaw bi bokkaale yàlla jàlle rey nit te tey ko bu ci toppaat mooy ak njabar kon njabar bàkkaar la ci bàkkaar yi kon képp ku koy def moom yaa ngi ci bàkkaar yi kon li ñuy def dafa wuute ak njabar sooy lépp ci sukkandiku. Mm-hmm. kon yàlla la ñuy ñaan yàlla lañuy ñuy jaam yàlla la ñuy topp loolu mooy li leer incha allahu rabbi. am na solo Serigne Abdou Khoudous seen borom ijaaba borom firi gént yaakaar naa suñu dégloo ni nga waxee kon. Mm-hmm. gis nañu ak sell ak ak sellal sa lépp nga teg ko ci alxuraanul karim ca dara na génn alxuraan lépp mi ngi ci biir alxuraan xanaa kay mu mel ni man man a nelaw ba doo gëstu ba xam secret ci nekk ak fañ ko dëxëñ nga bañ faa egg mm-hmm. waaye dara alquran bayiko dara itam gennu ci alquran mhm. ci alquranul karim mo wax loolu mhm. kon loolu amna solo mhm. waye suñu dikke nak ci euh, kanam den leen présenté suñu garab yi nga xamanteni ngeen ko gis ni muy yu am solo yo xamni xeyna xëy dana yëngu ci walu faj emorid waye itam bo xamanteni euh, dañ koy diw ci awra ku bëgg mu reuy sama ah, ñen ñi nga xamanteni xeyna euh na seeni awra dafa xawa gatt wala mu tuti ci ji am na ñoo xamante ni soxna yoo xam ni soxlawuñ côté boobu dañoo soxla koo xamante ni macha allah léppam day mat. Mhm. kon nag am sëñ Abdou Khoudous na leen ko ñoom tamit bañ mën a gis seen bopp ba dund ci askan wi ba suñ génnee tam mën a firi mën a siggi ndax kër gi tam da cee am solo.